wa gay gay message bari na message bari na nuyu na len bu baax wa mais de den ko ki comme li ngeen wax ci message yi rek mooy ñu leral sénégalais la situation actuelle ni nga xamni tay actuellement mom la demee lu jëm ci motion de censure bi assemblée nationale waaw comme gis nañ li message mom mi ngi bari ñu defal leen ci benn benn vidéo rek comme ça ñëpp comprendre no situation bi gars yi yàgg naa leen ko wax de politique politique du doole politique du xol lii la xel la Pastef égal génie politique amuñu ci morom bref la situation ni mu demee mooy benn Bokk Yaakaar seen député yi dañoo déposé des motions de censure pour daaneel gouvernement bi bi nga xam ne bëgg nañ daaneel li nga xam ne moom mooy gouvernement bi ñu dem déposé ko ngir mën a amal convoqué ben session extraordinaire bo xamné ci lañuy mëna jaar comme prox ndollu ngir mëna a li nga xamné mom moy gouvernement bi. bu ngeen xolé tay suba le prince Ousmane Sonko genn na wax ñaari wax dafa né assemblée nationale bi ni dundum fi ak fukki fan day jeex ma am d'ici 10 jours dañ koy dissoudre deuxièmement moy motion de censure du am Sénégal. gañu ñi jàppoon ne utiliser une subterfuge fekk la constitution.

wala le président de la république qui convoque convoqué session extraordinaire session extraordinaire la constitution dans son article 84... d'Afané, ...qui dafa ne képp l'Assemblée convoqué assemblée nationale le député bu mën a convoqué président de la république convoqué yow sa convocation day je suis moo am priorité de convocation gis ngeen ne Benno Bokk Yaakaar jotoon nañ convoquer, ngir mën a dugal seen affaire waaye tey. Pastef le président de la République a fait convoqué jox leen 84 l'inscription par priorité à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale et de droit si le président de la République ou le premier ministre en demande en fait la demande le bu premier ministre le président de la République xasse ba demander ku demandé waat amoo priorité ñoom ñoo am priorité donc loolu moo indi lii tey kon ba tax na suba ñoom ñu bëggoon convoqué ngeen ne dañuy indi motion de censure suba dañ leen dugalal quatre projet de loi waaye parce que ay ñeenti projet de loi lañ leen dugalee ngir ñu examiner ko te balaa ñu koy examiner kat seen temps écoulé wu benn bi mooy li nga xam ne mooy euh, projet de loi bi jëm ci autorisation président de la République a ratifié la Convention de l'Union africaine beneen projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme beneen déclaration de politique générale du DPG et dernièrement mooy session extraordinaire sur la dose de l'épuisement de l'ordre du jour fixé à l'article 2 du présent décret qui sera publié dans le journal officiel yii waxuma la balaa ñu koy woote waaye balaa ñu koy épuisé rek le 12 jeex bu le 12 jeex na ñu tas assemblée nationale waaye politique xale politique xam-xam politique xel soo ko jomaay daal yàlla nañ fi yàgg jaajëf sama yi